ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala xéewal ya nekk fa moom yan na ko yàlla dottil ñu di ko ñaan buur bi tabaraka wa taala yiw ya nekk fa moom yan na ko yàlla xéewalal yàlla labuñu ko yàlla xañ amin ya rabbal alamin mbokk yi Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bam leen di baaxee ci waxtu wi ñoo ngi bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa xéewal yam ñu xéewalal ci xéewalu nelaw bañ doon def waxtu su néew ci ginnaaw xéewal bi mu doon xéewal ba ñu yàlla tàggatal bu duutoon ne yàlla moo ñu créel xéewalu nelaw amul kenn ku ñu war a andil la nga xamante ne mooy xéewal wi ni tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ñu ne ci maana xadis ne ñu képp ku yàlla xëywalal xëywal wi nga xamante ni mooy xëywalu nelaw boo yeewoo ci nelaw woowu am na loo war a sante yàlla mooy nga ne alhamdulillahi lladi mboolem xëytu cant yu matale ñeel nañu yàlla ndax buur wi nga xamante ne axyaana moo ma may ma dund baadama amatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom buur yàlla la ñuy dellu keroog bu ñu noppee ci dund bi kon yow jullit bi fekk yaa ngi baamu kàddu gi di ko wax saa ne mu nekk sa góorowu gémmiñ saa yow tiitee ci nelaw wala saa yoo yeewoo ci nelaw nga di ko wax tàmmal ko say njaboot xamal ko say doom xamal ko say waa kër su ko defee mu doon njëriñ bi nga xamante ne walla mu doon yiw woo xamante ne yaa ngi koy épargnel sa di ko épargnel say njaboot ëllëg bés pénc la yàlla wax ci suratul zilzila fa man yaamal mithqaala zarratin xayran yara wa man yaamal mithqaala zarratin charran yara képp ku jëf jëf ju tuuti lu toll ni pepp bu dee lu baax la yàlla ne dinaa la ko won te dinaa la ko fay bu dee safaan bala tamit lu tuuti ni pepp dinaa la ko won dinaa la ko fay kon moment yuñ fi nekk di dund nag nañu bañ a jël nelaw bi mu doon dallukaay rekk bu ñu yeewoo ñu nekk ci leneen sangu set après walla nekk ci suñu yëfu bopp or ko yonent bi nee na xéewal ba nekk ci nelaw yàlla jox la ko saa yow ko jëfandikoo ba noppi dafa am li nga war a sante yàlla ñuy sant suñu sëriñ ya ñu xamal xam-xam bi ni mel di leen ñaanal yàlla ñoo faatu yal na leen yàlla jéggal yal leen yàlla xaaree arjana yal na leen yàlla yërëm ñi fi nekk di fii di dund ñun yal leen yàlla sàmm aar leen yàlla wattu leen amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne ba léegi ñu ngi woyandek yéen ci xéewal ba ñu yàlla wàcceel mu doon xéewalu ndox xéewalu taw xéewal wi nga xamante la ko tax wàcc du loraange ba ñu defe ne loolu lañu ñu nekkee looloo tax yàlla wàccee xéewal wu déedéet xéewal wi la ko tax wàcce la ko tax a suub la tax yàlla wàccil ñu ko yàlla woon nañ ñu ko ci alquraan nañ leen bañ a jël xéewal woowu rekk defe ne loraange ba nit ñi di ci dund moo taxa wàcce ndox déedéet melut nii de du looloo tax yàlla wàcce xéwalu ndox de la tax yàlla wàcce xéwalu ndox yàlla wax nañ ñu ko ci téere alquran moo tax mu ne ñu yen doomu aadama yi nga xamante ne da ngeen defe ne amaana xéwal yama wàcce ci asamaan si mu doon ndox dadi loo xamante ne seeni loraange laa ci namm déedéet waaw namuma ci seeni loraange de lor leen taxul ma wàcce ndoxu taw tamit inondation ba gaay di dund ba gaydi di coow di ko waxtaane di looloo tax yàlla wàccee ndox de waaw loolu lu tuuti la par rapport ak la tax ndox di wàcc ci kaw asamaan suñu waxtaan ya weesu woon jukki nañ leen ci la tax yàlla wàcce ndox ak ndox bi buy wàcc ana si yan circonstance lay wàcc bu wàccee ba taw ana la nga xamante ne mooy la si doomu aadama di jëlee comme la kay njariñ waaye lay lor nit ñi tamit kenn xamut nit ki la ci loru walla nu mu ciy loroo kudul borom bi waaye loraange doomu aadama nag taxuta wàcce ndoxu taw au njëriñam a taxa wàcce ndoxu taw ba tax na buñ demee xool ci sotul abasa dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala mu di joxoñal doomu aadama bi nga xamante ne moom dafa fittirlu dafa beewu weddi na xéewalu yàlla fa yàlla jaarak moom ba mu gane ci àddina waaye yàlla di ko wax ne maa nekk ak yow ba xattaa li ngay jëfandikoo ci xeetu ñam xeetu jëfandikoo kaay ya ngay jëfandikoo ñam beeg lekk beeg fruit beeg ñoom seen loolu yëpp man yàlla maa la ko tàggatal moo tax mu ne fal yanduril insaan fal yanduril insaan ila taamihi anna sababna al maa sabba thumma saqaqna saqa fa ambatna fiha habban wa inaban wa ghadban wa zaytunan wa naxlan wa hadaiqa gulban wa fakihatan wa abba mataan lakum wa li an'amikum sadaqallahu alazim mbokk yi ñaan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii duñu wax ne yéen doomu aadama yi xam leen ne ndoxu taw ba ma leen wàccel nii du pour lor leen na ngeen xam ne doxu taw ba tax mu wàccee ko du pour ngeen am coono ndoxu taw bi du pour inondation ndoxu taw bi du pour ngeen inondé ndoxu taw bi du pour ngeen di ko sow parce que da leen lor déedéet ndoxu taw bi la ko tax a wàccee mooy seen njëriñ xanaa léeg-léeg sama coobare ma mosal ci ñi gaa yoo xamante ne maa bëgg a raxas seeni bàkkaar xanaa léegi-léegi ma musal ci gaa yoo xamante ne maa bëgg rek seen xel dellu ci man yàlla xanaa léegi-léegi man yàlla may bëgg sama jaam bi am mu munib xol bay dellu fa man yàlla mu xam ne maa ngi fi waaw léegi-léegi doomu aadama seytaane da koy jey ba mu fàtte la tax mu nekk ci kaw suuf si waaye léegi-léegi yàlla tegal ko calendrier boo xamante ne wala climat boo xamante ne sa xel du dellu ci kenn ku dul fa yàlla waaw ndax borom alal yi dañ lay wóor borom xam-xam yi wóor la kenn du ci man dara nekkin ba nga nekkee kañ la ngay xalaat mooy la laa malja wala man jaa min allahi illa ilayhi li ma nekke nii fa yàlla dong la jógee ko laqukaay bi du si kenn du fenn fu dul fa yàlla boo demee ba suur loolu ba xalaat loolu nag yàlla daal di andi ay sabab yi nga xamante ne moo lay jëlee ci nekkin boobu nga nekkee mun naa tàggat borom barki ñëw manxal la loolu nekk ki yow mun naa tàggat boroom xam-xam boo xamante ne day ñëw taxawee la ba nga taxale kooku loolu nga nekkee waaye nag la tax ndoxu taw bi di wàcc nañ leen bokk suub dugg ci géeju alqur'aan ñu dem ci saar ba nekk ci alqur'aan di saaru suratul abasa dinañ fa gis buri yàlla tabaraka wa taala duñu wax ne ana lan mooy sababu wàcce ndox ba yàlla di sóob ci suuf si mu nekk ndoxu taw bur yàlla ne fal yandurul insaanu na doomi aadama bi xool doomu aadama bi na gëstu na dawal xelam na dawal bëtam na géem a def investigation def recherche fal yandurul insaanu na doomu aadama xippi bëtam na xulli bëtam xool ilaa tahaamihi ca la muy lekk ah waa yàlla xool nañ la ñuy lekk loo ci bëgg a wax yàlla ne loolu ngeen di lekk yéen doomu aadama yi anna sabab nal ma sabba xanaa du man yàlla may kii sóob ndox ci suuf si ni ma ko neexee ak ni ma neexee ak na ma koy defee an naa naka man yàlla sabab nal ma man may def ndox bi di sóob saban na ma neexee léegi-léegi yàlla taw suuf si tooy léegi-léegi yàlla fanaane taw suuf si tooy ba màndi béykat bi bu xëyee danaan suuf si de màndi na waaw suuf si jël na lu waaw suuf si muucu na allahu akbar suuf si muucu na nga xamante ne loo si ji ndox bi suuf si muucu gannaaw bu bu ñu toogee ay fan walla ay semaine taw bi ñëwut ndox ba nekk ci biir suuf si mooy daal di ñoral loolu béykat bi ji moo tax yàlla ne anna xanaa du man yàlla sabab nal ma may sóob ndox bi may sóob ndoxu taw waaw may suub ndoxu taw maa koy sóob ci anam bi nga xamante ne man la neex ca nim ma neexee an naa sabab nal maa asaba xanaa du man yàlla may suub ndox bi ci anam ba ma neexee waaw may sóob ndoxu taw bi ci suuf si anam ba ko bugge léegi-léegi ma taw waaw taw wéyama maay léegi-léegi ma taw taw bu woyof waaye léeg-léeg ma taw ba suuf si naan ba mànde moo tax mu ne an naa ñun yàlla sabab naa ñooy sóob almaa a ndox saban num ñu neexee ñu sóob ko noonu ñu tawee noonu ñooy taw num ñu neexee léegi-léegi yàlla taw taw bi taw bay walangaan ay fan ay semaine muy taw rek kenn amul sa sañ-sañ kenn amul sañ-sañ arrêté taw bi du ñaan du leen waaw taw bi moom yàlla da koy sóob num ko neexee waaw yàlla ne gannaaw bu ma tawee num ma neexee summa saqaqna al arda saqa ma nandal suuf si nandin bu ma neexee ma nandal suuf si ba mu màndi béykat bi bu xëyee ñama xam ñuy béy dañ naan ah yàlla ji taw na suuf si màndi na allahu akbar ma nga xamante ne fa ambatna fiha képp ku si ji loo xamante ne pepp la yàlla nee na ñu daal ko saxal ñu daldi di ko meññeloo waaw ñu meññeloo ci suuf soosu képp ku fa ji dara ñu def ko mu doon luy meññ fa ambatnaa fiiha habban ñu daal di meññeloo ci suuf soosu ay pepp ya ngeen fa ji wa inaban ak ay raisin wa xadban ak ay xeetu mbéy yoo xamante ne loolu doomu aadama bi moo koy ji wa zeytuunan ak ay huile d'olive nga xamante ne wa naxlan ak ay garabu tàndarma wa hadaika xulban xeetu meññeef lañu yoo xamante ne mun nañoo nekk fruit mun nañoo nekk ay jumtukaay yoo xamante ne doomu aadama bi moo koy jëfandikoo wa faagee xatan ak ay xeetu fur yoo xamante ne wa abban ak ay xeetu pepp yoo xamante ne mun nañoo nekk loo xamante ne day wol di way mbéy boo xamante ne day way di dem waaw yàlla ne ñu loolu noonu ma leen limal li yëpp mataa an lakum yóbbal la ñeen leen jumtuwaay yama leen réserver la ci biir suuf si waaye nag bu leen ci fàtte de wal anaamikum waaw seen béy yama dogal ngeen di ko béy loolu yéen ko moom waaye nag wala anaamikum waaw seen jur yi tamit ci lañu ñu bokk de seen jur yi ci lañu bokk seen jur yi bokk nañ ci de waaw bu kenn jël jumtuwaay yooyu jëfandikoo ko fàtte sa jur yàlla dakaa tere yàlla nee na bu leen def loolu waaw jëlal li nga moom góobal li nga béy yóbbul sa kër jaayal waaye jur bi la mu moom jël ko nga jox ko ko jur bi la moom nga la waay jël ko nga jox ko jur bi bul jël la jur bi moom nga di ko jëfandikoo di ko faje say soxla yàlla dalakaa tere yàlla nee na bu kenn def li ni mel waaw yàlla nee na la lakum ay yóbbal la yoo xamante ne yéen ko moom waaye nag seen jur yi ci la ñu bokk walla wala an'amikum seen jur yi ci la ñu bokk jëlal li nga béy jëlal fruit yi jëlal la nga xamante ne moom nga yittewu ca la nga béy waaye lépp la nga xamante ne jur bi moo ko moom te yàlla dénk na xel ak xol ba ngay ràññetle la jur bi moom ca la nga bay jëlal loolu jox ko jur bi bul jël la jur bi moom nga jaay ko dem jënde ko ceeb di ko dunde ki ak say njaboot nga bay jur bi muy taxawaalu di dugg ci toolu nit ñi loolu yàlla santaanewu ko tooñ la waaw jur bi la mu moom jëndal ko ko waaw jëndal ko ko la muy jëfandikoo waaw jëndal ko la muy jëfandikoo nga yeew ko jox ko mu di ko jëfandikoo foofu nga ko yeew moo gën nga jël la jur bi moom nga daal di ko jaay bàyyi jur bi nga ne comme àll bi verte na war naa mën a dem dundal boppam loolu yàlla santaane wut loolu waaw moo tax mun nañu mataan lakum yóbbal ba ma leen réserver la ci suuf si ngir bu ma tawee na ngeen jëfandikoo suuf si na ngeen béy suuf si lépp li ngeen fa ji xeetu pepp ak xeetu doom ma daal di ko meññ waaw ma def ko mu meññ mu ñor ma daldi di génne bénéfice bekk njëriñ bi ngeen njëriñoo ko yoon doomu aadama yi kon nañ leen bañ a gis ne ndekki ndoxu taw day lor nit ñi déedéet du loolu de ndoxu taw moo ñuy meññal ceeb ba ñuy jëfandikoo ndoxu taw moo ñuy meññal la nga xamante ne mooy la ñuy jëfandikoo ak ceeb boobu waaye ndoxu taw moo ñuy meññal gàncax joo xamante ne jur bi da koy jëfandikoo lekk ko ñun ñu jër jur woowu jëfandikoo ko kon nañu leen dawal suñu xel tuuti su ko defee ñu gis ndeke ndoxu taw xéewal la boo xamante ne moo gën a ëpp loraange ba ñuy gis ñu bañ a nekk ci ñoo nga xamante ne seytaane dañuy won loraange ba ñu ndoxu taw bi di lor bem ñu fàtteloo njëriñ ba ñu yàlla joxoñ ne ndoxu taw bi de la mu doon njëriñ moo ëpp la leen di lor ñu bañ a bàyyi suñu bopp seytaane du won ndoxu taw bi lam ñuy lor ne moo gën a ëpp lum ñuy njëriñ moo ne yàlla ma ko wàccee moo ñu ne ndoxu taw bi de seen njëriñ dong tax ma di ko wàcce ba tax na ñu di ko wax ne allahumma andil alayna al gaysa wala tajalna min al qaanitin yan nañu yàlla boole defal ñu ndoxu taw bu am njëriñ mu bañ ñoo def mu bañ ñoo boole si ñuy dund bekkoor kon bekkoor loolu leneen la waaw bekkoor doomu aadama bi dina ci loru waaye jur bi dina ci loru ñaari mbindaafu ni bu ñu loroo ci bekkoor nag loolu catastrophe la waaw loolu catastrophe la kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom jan na yàlla xeetali ña loru ci ndox mi ñu di leen di massawu waaye kilifa diine ye kilifa àddina eh, ya jël seeni moye te xawee seen wet dimbali leen xettali leen yal na leen yàlla fay seen jëf ju baax jooju yal na ko yàlla def xasanaat fil misaan yàlla sañ na ko mën na ko yal na leen ko yàlla defal ña loru ci ndox bi tamit yal na ko yàlla def jéggalaa koor leen yàlla jaarale foofu raxas sang leen ci lépp luy rëcc rëcc yañu defoon ci xeetu bàkkaar ndax yàlla na faree bàkkaaru doomu aadama moom rekk a ko xam te nam koy defee moom rek moo ko xam ba tax na buur yàlla tabaraka wa mu du ñu wax ne falyandurul insaanu na doomu aadama bi xool na dawal xelaam waaw ila taamihi la muy jëfandikoo ci xeetu ñam yàlla ne xanaa man yàlla annaa sabab nal maa asaba may kii taw may kii sóob ndox bi ci anam bu ma neexee ci suuf si yow yàlla yaay def loolu de ba yàlla ne summa topp si saqaqna al arda saqa ñu nandal suuf si nandin bi nga xamante ne bu ñu yàlla bàyyeeg suñu bopp rekk ñu war a nandal ay hectare hectare ba loolu di màndi kañ lañ koy matal fu ñuy jëlee ndox woowu kon yàlla bu fekkente ne yaay kañuy rooseel suñu hectare hectare yooyu ba hectare yooyu màndi kon kenn du yow yàlla yan nañu yàlla jàppal bu yàlla ne gannaaw bu ma màndilee suuf si ca taw bi ma taw ci kawam ma daldi di jëf li nga xamante ne tële ngeen ko waaw ngeen man mooy suuf su màndi soosu suuf su wow soosu yàlla tooyal ko ba mu mandi ngeen jël seeni pepp wàq suuf si daal ko ci pëy dem tëddi seeni kër yàlla nee na fa am bat naa jamono bi ngeen nekkee seen kër di noppale ko nekk ci grand place yi di wax taw beeg climat beeg la nga jéeg ren taw bi nu muy nekkee béykat yi ñoom bu ñu béyee waxtaan dong la ñuy nekkee ci pénc bi ku weddi laaj jalal sama gaay ñi ma xam ci àll bi ñoom daal bu ñu béyee ba pare dem toog si pénc bi naan tey ren nawet bi waaw ren nawet bi gay di coow rek yàlla nee na la si gën am importance maa koy def buur yàlla mu ne ñu fa ambat naa ma daal di meññloo fii haa ci loolu ngeen ji fii fiihaa ci suuf soosu ngeen ji fii fiihaa ci ndox boobu noonu ma wàccee habban pepp ba yooyu ngeen suul ci biir suuf si waaw ngeen suul seeni pepp nga gis koo xamante ne dina am benn jiw boo xamante ne loolu mooy la euh, la gaay di wax dernière chance am ndeysaan mu takk ko ci saako ba mu dëgër waaw dëgër fit nag am kóolute fa yàlla jil jiw boobu nga xamante ne moo war a nekk sa avenir nga waqe pax ba mu xóot ne ko ci pëy dem toog toogaay boobu noonu nga toog di yaakaar yàlla taw yàlla nee na du ma tas yaakaar fa ambat naa fi haa waaw loolu nga ji ma daal di ko meññeloo bu dee gerte la ma daal di meññaloo hectare bi yëpp verte ak gerte bu dee dugub la ma daal di def hectare bi yëpp verte ci dugub bu dee mboq la ma defee ko nii bu dee ceeb la ma defee ko nii allahu akbar yàlla nee na pepp boobu nga ji nga am yaakaar ne man yàlla dinaa la ko meññeeloo di ma tas sa yaakaar dinaa taw ci suuf soosu pepp bi daal di mu daal di déclenché wu andi beneen format bu wuuteeg bi nga ko doon ji melokaan ba mu mel yàlla di la wax na muy jëfandiku ko yow ci yooyu nga ji bi furi yi nga ji ci tàndarma yi nga ji yàlla nee na loolu maa la ko jox di kado waaye nag bay ma bu la doon jàppale bi nga doon ji bu ko fàtte de fas bi nanka jox ak xam ci loolu nga ji loolu nga doon bay te fas bi dimbali la ci nanga ko jox wàllam loolu nga doon ji jamono ba nga doon béy nag bala ci dimbale nanga ko jox loolu nga nga di ko ji jamono ba nga ci tollu mbaam bala ci doon dimbali nanga ko jox wàllam yàlla ne mataan lakum lii ab yóbbal la ba ngeen jox comme kado mataan lakum ab yobbal la boo xamante ne man yàlla maa leen ko jagleel waaye nag mm, wali anaamikum seen jur yi ca la ñu bokk de mbaam bi wallam jox ko fas bi wàllam jox ko nag bi wàllam ci mbéy bi jox ko wallahi am na gaa yoo xamante ne dañuy jël gerte bi jëfandikoo ko jël xooliti gerte bi jëfandikoo ko jël ngooñ bi jëfandikoo ko allahu akbar waaw mala bi la doon dimbali bi nga doon béy moom ana wàllam yàlla jox na mala bi wàllam yow nga lànk ne de nga ne déet mala bi duma ko jox wàllam dama koy bàyyi muy taxawaal mala boobu amul xel muy taxawaalu mu dem gis toolu sa mbokk tollu sa dëkkandoor tollu keneen ku mel ni yow mu dugg ci moom defe ne vertu vertu la rek ñax-ñax la mu dem nappaaje la béykat bi ji yii mu lekk ko yii mu nappaaje ko coow li ne kur borom jur beeg borom tool bi ba ñu dem taxaw ci kanamu buur moo ne yàlla jox na la avertissement mata an lakum la la yàlla wax waaw li yëpp la la yàlla waxal nii juróom ñetti mbir yàlla la yàlla wax nee na la yaa ko moom waaye nag wala an amikum jur bi ci la bokk benn la jur bi moom mooy ngooñ bi benn la jur bi moom mooy na nga jaay jëndal jur bi la muy lekk xaalis boobu nga dencee ci sa gafaga ah la jur bi war a dundee ci la bokk de boo ko jëlee gerte def ko maafe walla nga jëndee ko ceeb di ko lekk say ceebu jën walla nga defee ko la ngay dunde mala bi nga bàyyi ko àll bi kon mala bi moo la gën a gore wax bi neexul nag waaye yàlla képp kuy jottali kàddoom ah, il faut nga jaar ci digg bi waaw kon mala bi mooy gën a gore yow mi yàlla wax ni juróom ñetti mbir laa la jox yow yëpp benn doyu la ci la jur bi moom tamit nga boole ko ci juróom-ñett yi muy juróom-ñeent mais mais maalakum kayfa tahkumun waaw di atte moom kenn xamul fu mu jógee mais du atte bu jub yàlla jox la huit sources ne la yooyu noonu yëpp yaa ko moom waaw yàlla ne fa ambatna fiha habban wa inaban wa gadban wa zaytunan wa naxlan wa hadaika gulban wa faakihatan wa abban yàlla nee na loolu yëpp mataan lakum seeni yëf la jël leen yéen a ko moom waaye nag yàlla boole si mala bala doon dimbali ba nga doon béy ba nga doon ji ba nga doon ba nga doon ba nga doon ba nga doon ba nga doon dajale ñax yeeg sànqaliñ yeeg lépp lu lay lor ci tool bi ba nga ko doon defar ba nga doon ruuj jur bala dimbali woon ba nga doon béy ngir meññeef bi mucc ci ñax bi ki la ko defal yàlla ne la walla ani amikum jur bi ci la bokk mala bala doon dimbali ba nga doon béy bu dee yàgg tool bi dong dong dong rek hectare yaa nga béy est-ce que di ko man waaye mala bi la ëpp fond ëpp la puissance yàlla tàggatal la ko jox la ko ne la nanga ko liggéeyloo mu di la xëccal ay hectare hectare hectare bi mu sotti ci kàttanu borom bi yàlla ne axam ci loole nanka ka jox allahu akbar léegi-léegi nga gis sama gaañ lanka bi tëdd si naaj bi waaw du ñu jëndal mala bi dara du ngooñ bañ koy jox di aliment buñ koy jox ñoom daal comme àll bi dafa verte dañuy bàyyi mala bi muy cofal boppam di lekkal boppam naam mën na nekk waaye nag na nga respecté wali an amikum tamit ca la bokk de moo tax léeg-léeg nga dégg yi ñu ne mbaam gàtt na lool waaye ci jur bi la bokk ah mbaam gàtt na lool waaye ci jur bi la bokk de kenn mënu koo génnee ci jur waaw mënu la koo askane feneen mënoo koo jëmale feneen mënoo koo boolee ci leneen lu dul ci jur bi ci jur bi dong nga mën a boolee mbaam bi ndax fala bokk fala la am place fa bokk waaw ah, foofu mooy racine am kon fépp foo feneen feneen foo ko nar dugal du foofu kon mbaam gàtt na lool mais ci jur gi la bokk kon jur bi tamit la mu mën a liggéey ci tool bi ak xam lu mu tuuti tuuti tuuti moo ko moom nanka ko jox su ko defee noonu la ñuy déggee aay bi mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñuy joxe xibaar ñu ngi nii taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may dégg ak topp allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ya rabbi ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasira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 innahu huwa alghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu